yëpp ñaan itam nu ñëpp nu gën a balante àq bu bee dan wax ay kàddu duñu ko tële tële ndax lu war lu war ci man ci tollaay bi mu toll ak fii mu nekkal sëriñ bi kon dañ koy tënk rek eh, ngi sant sant bu baax a baax a baax suñu borom mi nu boole bi sant sëriñ bi mi nga xam ne fàggul noonu lépp di suñu lépp tey ëllëg di sant it ci li weesu ak ci tolluwaay bi ci dox yi ñu wi wa waaye wax ji lu mat a tey la ginnaaw sëriñ bi ma ne su ko xam ci lu sóobu yoon yàlla soobu yoon yàlla nag dama koy tënk ci ñaari baat rek ñaari anam rek sóobu yoon yàlla il faut que bi mu futti mbubbum addunaam futti mbubbum adduna mooy lan in fokk nga dëddu adduna dëddu adduna li mu lay andil dara yi adduna dut la saf foofu rek laa ci yem nag kon nu góorgóorlu bu baax nu góorgóorlu bu baax gannaaw ba nu santee ba noppi nu sax dàkk ci góorgóorlu di gën di xam li nu fi indi mu jaamu yàlla rek jaamu rek yàlla rek moo nu fi indi leneen andi nu fi kon nu góorgóorlu bu baax ci jumtuwaay yi nga xam ne moo nuy won ne noo ngi jéem suñu wartiif mu jàmm yàlla jaamu yàlla da ci jiitu wee ci ndigal di bàyyi tere te yàlla tax sa kem kàttan la ca dolliku mooy jéem a xam lu yàlla bëgg ci noonu jéem a xam lu yàlla bañ ci nun di jéem a nekk ca yàlla bëgg suñu kem kàttan di jéem a daw suñu kem kàttan suñu xelu bëkkan la yàlla bañ kon di def ndigal bàyyi tere def li yàlla bëgg daw daw li mu bañ loolu ala kulli xaalin mooy jumtu yàlla jumtuwaayu jaamu yàlla te jaamu yàlla rek nu fi kon nu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax a baax sunu kem kàttan am naa lu ma mën a wax xam naa ko itam waaye wax daa war bu jógee mën a am njëriñ ndax wax joo xam ne ñaar rek koy ñaar ñaar ñaar a koy teewe ñaar a koy teewlu ki xam ak ki xamul ki xam te nun ñépp ci am xam-xam day des wax joo xam ne nag eh, ki xam bu ko déggee bu ko jàppee waxi nit ki xamul itam bu ko déggee wax yi sax la koy jàppe kon wax lu mat te tey la ndax la ca gën a am solo muy mu am njariñ loolu xëy na moom gàllankoor ci ci wax waaye noonu mu ko ubbee rek ci sóobu yoonu yàlla bala ngaa xam sëriñ bi il faut que nga sóobu yoonu yàlla waxuma laa dund ko te sóobu yoonu yàlla sóobu yoonu yàlla moom bunt bi il faut que nga sum sum futti mbubbu adduna mi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy indaale il faut que nga futti mbubb moomu loolu mooy lan in faut nga dëdd adduna te dara adduna dut la saf nga door a sóobu yoonu yàlla foofu nag foofu nag la la rawaate bi nekk ku gën gën a sóobu ci yoonu yàlla muy gën a xam sëriñ bi ku gën a sóobu yoonu yàlla moo lay tane ci mën a dund sëriñ bi kon eh, mbir la mu mu rëy xam màggaay bi sunu borom màggaay sunu borom mu rëy rëy boo xam ne xamee suul fu mu yem loolu loolu moo tax sëriñ bi dox doxin dox doxin bi mu dox diggam ak boromam def ni ko li ko boromam digal ci ci yonent bi mu def ko defin ba u kawe sul ne du xëy na eh, doxi ko doxin woo xam ne ku ca ak gi doo ko mën a weesu muy jaamu borom ak topp yonent bi mel ni mbindeef mënut a weesu li ci sëriñ bi ni ko sëriñ bi doxe mel mbindeef du malaayka du yonent bu leen yoxu bu leen yoxu bu leen yoxu mel na mi néef mun te weesu dox ni sëriñ bi doxee jëm ci boromam wëlbati ko dox dox dox ni mu doxee digg ma digg ma yonent bi menn mbindeef doxin la woo xam ne menn mbindeef mënu ko weesu foofu laa ma laa ci mën a yem kon nu góorgóorlu rek eh, sëng ba gën ci mbindeef mu jëw liñu sëriñ bi ci xaddis ba wax ne amul kenn koo xam ne jëfam sa jëf mën la yu bàjjana loolu yi suñu borom la xam ba mu xam moo tax mu wax ko amul kenn koo xam ne sa jëf mën la yu bàjjana mënuñu ko ñàkk laaj ñu ne ko ah ba ci yow mii mu ne ba ci man loolu sama borom nas ma ci mbarum yërmandeem kooku nag moo wax loolu waaye sëriñ bi moom daa nekk ci gannaaw yonent bi ñaanal mbindéef yépp irham jamial wara la wax kon nag noonu la demee ginnaaw sang bi gën ñépp mu wax loolu diggam ak boroomam diggam ak diggam ak diggam ak ja diggante jaam ak boroomam lu moo ko wax mu ne su ko ñàkk laaj ba xam kon fu mu jëm ak na def bañ ko ko laajee dafa wax ne saddi doo bu loolu boroom xam-xam yi moom ñoo ko mën a firi loolu la yonent bi wax man nag ni ma ko li ma ci déggee moo di dañuy dañuy bañ a bàyyiliku te bañ a sàggan tax dàkk nag ci jaamu gu ñu fendi di wéy ci ndigal di bàyyi tere suñu kem kàttan di bëgg lu baax di bañ lu bon suñu kem kàttan lépp yàlla tax ñu ko def wute ko moom rek loolu noonu loolu loolu loolu jaam ñi loolu lañ mën a am nañu def seen kem kàttan ba mu waxee ne sa didu xaribu borom xam-xam yi mën nañ ko firi ñoom loolu man na ma ko déggee mooy bu nu bàyyiliku bu nu sàggan waaye da caa teg ne kullun mu yassarun lima kutiba la waaw loolu la ca teg waaw ba jaaxle amee da leen wax leen nañu war a def ñu war caa yem kon góorgóorlu bu baax ci li nu fi indi jaamu yàlla rek nu fi sunu kem kàttan ñu ngi ci diggante di bàyyi tere di bëgg lu baax di bañ lu bon di jëf lu baax sax ca dàkk daay man di yéene lu baax di wax lu baax di jëf lu baax sax ca dàkk te yàlla tax loolu rek la mooy pexe mi kon bi la alamin sant rek lañ war a def ginnaaw foofu la mbir mi nekk suñu borom boole noog sëriñ bi sëriñ bi xam ni mu xamee boromam ak ak ni mu wéyee ci ndigal ndigal boromam ci yonent bi ci diggante boobu mu toll bindeef yëpp mu xool leen ñëpp na ci jàmm ko ti xërëm yeeg yëfar yi mu sàggan ñeeg say ñëpp na fi ñépp ne ci biir mu ne boroomam irhamal jamil wara yërëmal yépp loolu kàddu yi dama war a wax te am gàllankoor bu mënuma wax ndax boo sañoon boo waxee mu am njëriñ waaye dama war a wax fii ma toll fa mag ñi daa ga àgg naa fa so romb naa sama juróom-ñett fukki at rawatina nag dégloo leen mën a jariñu dégloo leen mën a jariñu rawatina ñu tudd gi mu bi te ma toog te lool kon war na maa wax waaye nag boo sañoon booy waxi day wax day am njëriñ jërë ngeen jëf maa ngi jégalu jërë ngeen jëf jërë ngeen ju ñu am sëriñ bi suñu boom defal na ko coobareem nan ñaan rek mu dina ko dollil muy gën a bëgg sëriñ bi di ko gën a jéem a xam di ko jéem a di ko gën a jéem a dund suñu képp kàttan bu ñu ko defee daan mucc teeg ëllëg daan texe teeg ëllëg daan defaru teeg ëllëg loolu rek gàllankoor yi ci àdduna ak fitna yi ci am ak ni mu demee loolu loolu dong nu ci mën a musal te mën na rafet njort bu baax am gi lu sa am sëriñ bi dana nu musal ci yëpp jërë ngeen jëf nu ñëpp tàllal nu ñëpp tàllal nu ñëpp tàllal ñëpp tàllal